surprise bi kontaan naa ci grand frère kontaan naa ci Atar Frontière mi ngi noonu ci kaw dafa jóge léegi ci Papa Diouf bi grand grand théâtre ak suñu frère Bakar. ni Arafas dañuy supporté ak ñi fi supporté Zarko ñoo bokk ndey ak baay làmb foo rek ak réer que le meilleur gagne ñuy xuloo benn guerre la ma Ada Fass ñoo koy dee yéen ci des ñëpp da ngeen am jàmm nekk ci jàmm fi may tëjee Sidi dama jëm ci bés bu mag muy le 15 janvier dama ñëw fii nag ànd ak samay nit pour ñu doon jàpp ci bés bi instant yii dama war a voyager nii nii nii ma sacrifié mu ñëw te dama bëgg nga teral ma fii si kanam ñëpp di ko gis ma dem préparé yi sama bis ñëw indiwaat la ndam li nii fii ak yow ak ma daal sama teel incha loolu yow dañu boole ana géeki ana géeki suma manager ana géeki na géeki ñëw fii léegi ma boole laa géeki yow suma frère nga buñ ko defee dañ ko war a def yàlla neen defal la jàmm da dama jàmm di jàmm wax na nag lu am solo Ada Fass ak Zarko ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Ada nga am ay mbokk yoo xam ne ñu ngi Grand Yoff Grand Yoff tamit Medina yow da nga faa am ay mbokk géej boole naa la champion bi boole naa la champion bi dañu wàcc léegi léegi léegi ci suuf ba joxoon ma ko deux cent mille mu def question dem fi ma dem ñëwaat. maintenant kii mooy sama ménage yow àndal ak moom nii ci suuf ci porte bi mu jox la ko kontaan naa ci barke borom bu ma ko defee dama ko war a def. bu ko defee dama ko def. ñu dañ ne euh, génn borom kàtt la waaye loo ko laal borom yëpp li nga def nii yàlla na ko suñu borom fay ak maam borom daaru yàlla na Sëriñ Tuuba taxaw tey ak suba li nga yàlla na ko suñu borom defal yàlla wéral baat bu baax a a lu bari ji ñëpp parce ma defal leen jàmm ñoom ñëpp ñëw fànn. lamb effort buy a la sama grand frère bi am lay siyaar bu baax kontaan naa kontaan naa de la boo xam ne day boole Zarko ak Ada Fass ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi